waañu màggal di benn ci liggéey yi nga xam ni commission sociale bu Touba ci kanam mi ngi koy amal ci màggalug Touba gi ngir taxawu ñi nga xam ni dañoo nekkee ci ci sancaan yi te seen loxo jotul seen ginnaaw ñu taxaw leen ànd ak ñoom dundal bisub 18 safar ni nga xam ne noonu la ko Cheikh Amadou Bamba santaane muy ñu santale ko ci yàlla ci li dalee ci ginaar ba ci giléem liggéey boobu nag commission sociale bu Touba ci kanam door nañu ko mu jëm ci waañu màggal yi am na équipe boo xam ni demoon nañ sur le terrain doon nemmeeku waañ yooyu nga xam ne moom lañ bëgg a taxawal ci yenn quartier lañu koy def lool nag amal nañ ko ci njiital Serigne Mourtada Mbacke moom Serigne Abdoul Fattah mi nga xam ne moo jiite commission sociale bu Touba ci kanam àndoon ci ak Serigne Bara Fall ak Serigne Khadim Dieng mi nga xam ne moo jiite sous commission distribution lool yi nag ñu ngi ko amaloon ci mardi di talaata dëppoo nag le 23 juillet 2024 ñu demoon ci mboolem ñeenti xible yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bu sell bi ngir def seeni repérage ngir xam waa ñi màggal yooyu fan lañ ko war a taxawal am na ay numéro yoo xam ni kilifa yi jiite commission sociale bu Touba ci kanam jotoon nañ ko jël ci quartier bu nekk maanaam ci site yi nga xam ne jot nañ koo visité moom moo tax ginnaaw bi ñu jokkook ñoom ci téléphone leeral leen li nga xamante ni moom lañ fa bëgg a taxawal ci màggalu Touba édition 2024 bi loolee di sababuk le 29 juillet 2024 commission sociale bu Touba ci kanam am délégation boo xamante ni delluwaat nañ sur le terrain ñu ñëwaat ci bërëb yi nga xam ne jotoon nañ koo repéré ba noppi ñëw fa waxtaan ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk leeral leen lii nga xam ne moom mooy seen bëgg-bëgg muy ñëw taxawal fi ay waañ yu mag ànd ak ñoom màggal gi ci sant bernde ak jaamu yàlla ci sit yooyu le daañu fa taxawal ay bâche yoo xam ne daañu fa dëkkee jàngum alxuraanul karim njàngum xasida ci diirub màggal gi boole ko lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum bernde ñu waajal ko ngir ànd ak ñii nga xam ne dañu nekkee ci sancaan yi te seen loxo jotul seen ginnaaw ñu mën a dundal màggal gi di bisub 18 safar visite boobu nag doore nañ ko ci quartier Serigne Saliou nekkee ci soowu dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba bokk ci benn ci quartier yi nga xam ne tànn nañ ko ngir fas yéene fee taxawal waa waañuk màggal jot nañoo amal waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom lañ fa fekk ngir leeral leen lépp loo xam ne moom moo jëm ci liggéey boobule ginnaaw bi it dem nañ ci fi nga xam ne moom moo di jaabi nekkee ci penku dëkk bi moom it bokk ci quartier yi nga xam ne tànn nañ ko ngir fas yéene faa taxawal waa ñu màggal ci noonee it dem nañ ci forage weñ di daaw salaam tawféex moom it nekkee ci bët saalumu dëkk bi bokkit ci bërëb yi nga xam ne dañ fay taxawal waa ñu màggal yi waaye jeexalee ko ci sañ Camara 2 nekkee ci bët gànnaaru dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba Mbacké moom it bi ñëwee ci bërëb bi ginnaaw boo xam ne kilifa yi leeral nañ mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk yéene gi nga xam ne am nañ ko ngir ànd ak ñu màggal gi ñoom it am na kàddu yoo xam ne yëkkati nañ ko rafetlu bu baax a baax ñi nga xam ne noonu la commission sociale bu Touba ci kanam si yéene ànd ak ñoom màggal ak Touba gi. di rafetlu bu baax a baax a baax liggéey bi ndax ñëwee na fu ko soxlawee. ndax ni ngeen ko waxee mooy social mooy dimbalante te màggalit kat nekk loo xamante ni te ni maanaam loo loo loo loo xamante ni màggal la bis feet la boo xamante ni boo yegg see ñëpp war nañ ko yëg rawatina comme ni ngeen ko waxee léegi nga xam ni fii màggal gi dana ñëw ñu ci bari ñenn ñi buñ xëyee suba dañuy seeni siwoo dem biir dëkk ba li nga wax dafa dëppoo ak la fi am ba nga koy wax daa mel ne da ñëw ci biir dëkk bi xam la fa nekk lépp ni nga ko waxee effectivement dafa dëppoo ak ni ni ni muy doxee bare na ci ñoo xam fii ma bu suba la la ñuy wëri ko war a wutee xëyee suba dañuy wuti seeni siwoo dem biir dëkk am na ci ñoo xamante ni fi mën nañoo dem ba bis bi sax dañ naan fii xanaa màggal xewu fi ba ci gone yi fi dëkk sax am na ñoo xam duñ ko yëg ngir lan benn yëngu yëngu yëngu yëngu duñ ko dégg lu nga gis oto bi fi ñëw wàcc wala dem dikkaat noonu nga koy yëgee nga xam ni am na lu yëg am na lu xew tey bu dee gone yi sax mën nañ koo bañ yëg kon ni ngeen fi ñëwee ñëw ngeen fi ñëwin boo xamante ni ñu ko yellool kon ñi ñi ngi rafetlu bu baax a baax a baax a baax di ci am mbégte ak kontaan di wax ni yàgg nañ koo bëgg ndax daaw bëggoon nañ ko sottiwut daaw ba goon nañ ko sottewut am nañu ci doon waxtaan ba ci safar bii jàll bi ci top keroog bi ñuy defar fii safar gi daanaka jaayante nan ba sonn ñaar fukki junni gars yi mënuñu koo am dajale nan ba sonn waxtaan boole ñaari daara yi yëpp a waxtaan waaye mënuñoo am daanaka ñaar fukki junni nga xam ne fi toog waxtaan bari fukki junni lan yor xaw ma ak lan ak Cheikh Modou Camara mi nga xam ne mooy jëwriñ ji mooy kilifa gi moo ñëw joxe ab gàtt ñu mujj koo jël safaree ko nga xam ne safar ko mucc ayib ñu ni won bu màggal gi ñëwee nañ dajawaat def ko yàlla dogal ni moyen bi matewu ko am na ñoo xam dañuy am seen gan gan seen kër ñii ñaari ganaar lañ mën a jënd ñii ñii lañ man ñii dañuy dem dëkk ba lijjanti ji ko ba démb rek bi pase jéem nañ ko sottiwut ba démb maa ngi waxtaan ak Moustapha Seydi mi maa ngi ko wax fii démb ci bëccëg ma war na noo fexe góorgóorlu ñi fi nekk ñëpp ñu jéem a dajale waxtaan ci suñ biir xool luñ am ñu boolante ko jéem a def fii maanaam ci ci ci ci ci penc bi ñu jéem fee def baas bu dee donti sax benn xar la wala dara ñu wut ko dajale ko lu fu waay am nga indi ko ndax soo ko defee di nga boole danga dimbali ñi nga xam ne amuñu ko te di ko wuti dëkk ba ak ñi xam dañuy toog di jéglu xew dem ba ma koy wax boobu fekkewu leen ko mm-hmm. kon daa mel ni doon ñaan. sëriñ bi defal nañu ko tey alhamdulilah ndax liggéey bi ngeen di def liggéeyalu sëriñ Tuubaa ndax ko jaaxle nga ñëw dimbali ko ku am jafe-jafe nga ñëw génne ko ci jafe-jafeem yooyu te yaakaar naa tey ñi fi teew ñëpp seen xol sedd na kon alhamdulilah eh, sëriñ bi kat liñ fi nekkoon di ko fi xaar di ko fi nekk sëñ bi fekk si nañu tey sëriñ bi gesu gesu nañu li ab signal la buy wane ne ñun sëñ bi bàyyi nañu xel. tey nin ko defee suñu borom dimbali ñu la des nag ñun ñoo ci des mooy ñu fexee góorgóorluwaat buñ pare ñu xool nan la def benn say fexee waxtaan fexee diisoo ba ñoom itam liñ bëgg ñu mën koo amee nu kawe njor waa dëkk yàpp amuñu benn kàddu ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant ana sin Touba de ñun de yaakaar naa lii dina am ndax ku nekk tuuba biir Touba waroo ñàkk dara lii moom jaar-jaar la. Baye Camara chaque jour su day wax toogu leen rek lii jaar-jaar la lépp li ngeen manqué fii Sëñ Tuubaa da leen indi fii te loolu lay nekk ni bi defee bi ñu safara dem daaw ñu bugg ko def la dala dañoo dem si Baye Camara moo jël alalam di jox ñu kenn ku ne ñaar téeméer kenn koy téeméer mais lii suñu borom indi bu neexee suñu borom su ngeen demee ñun tamit di ngeen toog baasi ngeen sasu ñun ñun tamit dinañ waxtaan suñ góor ak suñ jigéen kenn ku ne loo mën a barkelu ngir yàlla ak yonent suñ Tuubaa ndax dégg naa suñ Tuubaa mu ne ku ma defal li nga mun ma defal la loo mun ñun daal am na ñoo xamante ne dañoo bàyyi fu sori ñu bàyyi seen lépp mu ñëw ñu ñëw si suñ Tuubaa mel ni ñun olof yaa ngi fi soose yaa ngi fi séeréer yaa ngi fi am na yoo xam ne dañoo jógee ba Guinée Conakry bàyyi seen lépp ñëw wuy si seen moo tax ñu ñëw kon bi si bu jógee rek kenn ku ne donte juróom juróom dërëm la da nga war a defal addiya seen Touba Mbàkke ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant defal ñu ñaan ñu am fi yoon ñu am fi hôpital suñu doom yi ñu xam fu ñu jàng ndax Xaadim Faal daaram ngi nii moo nekk nii léeg bu tawee rek xale du ñu mën a jàng. ak beneen baar borom daara ji ñëw fii moom sax amul lu ko war bu tawee xale du ñu jàng te ñëpp xam ne ni Sëriñ Tuubaa li ko may lépp alquran kese la daara jooju mu ngi nii léegi la ñëw bu tawee ñoom seen xale du ñu jàng mais loolu lépp jaar-jaar la ngeen ñaanoon Sëriñ Tuubaa lépp lu ñu soxla fii suñu borom indi ñu fii. comme ni ma leen ko doon leeral euh, léegi nii rek Touba Ca Kanam moom yitteem doonul lu ñaan gi sëñ bi ñaan ci dëkk bi te suñ borom nangu ko ñu bokk ci ñu koy sottal ci saayir loolu moo waral di koy sottal nag da caa bokk ci saayir si mooy ay koppar mooy waral ñuy wax weer wu nekk murit bu ko man joxe ñaar téeméer loolu ñuy dajale ñu ngi ciy jëf ay jëf yu am solo yoo xam ne ñu bari mën nañ cee teg seen bët ci ay lamp yu def ci dëkk bi lamp yu bëree bëri yoo xam ne man daanaka ñaar fukki junni lamp yu manqué ñeent fukk te lu fi dëkk bi dajut incha allah duñ duñ duñ bàyyi eh, defar ay yoon defar ay bërëbu fajukaay am na bërëbu fajukaay boo xam ne bi leen gën a jege mooy bu allié bi eh, jëmbat ay garab ginnaaw suba gaaw bi di ñëw am na garab yu bëri yu war a jëmbat ci dëkk bi ci teewaayu kilifa yu bëree bari ak yeneen ak yeneen ak eh, yooyu nag ay bànqaas la ay commission bii nga xam ne moo ñu tax a ñëw fii nag moom la ñuy wax commission sociale. mooy bànqaas bi nga xam ne moom la ñuy dénk wàllu dimbalante ñu mën koo tënk ci waxi si Cheikh Mamadou Fadal bi mu waxoon ne jaamu yàlla jaamu yàlla bokk ci nag li commission sociale war a def ci biir màggal gi bokk na ci li war a def muy taxawu daara yi jënd ay basang yu bëree bëri daaw jëndoon nañu tolloog juróom benn téeméeri basang ak lu topp basan yu mag yi di ko séddale daara yi séddale nañ ko lu téeméeri daara xam ne boo ko doon xool ci xaalis dana ëpp huit millions. noonu it lañ ko fas yéene defee nga xam ne moo nekkee ci Mbàkke ak prison bi nga xam ne moom moo nekkee ci Njaareem ngir ànd ak mboolem détenu yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk dundal ak ñoom grand magal bu Touba ci ay bernde ak lépp lu ci aajow. ak dem ci bërëb bi nga xam ne caabi dañ leen di féete ginnaaw muy prison bi nekk Mbàkke ak nekk Njaareem yëpp ñoom tamit taxawu leen ci wàllu magal gi ngir ñu yëg ne bii mooy bis bi sëñ bi woote woon ngir ñu santalee ko ci boromam. ngir ñu yëg ni bis bii daal bokkut ak bis yi ñu weesu woon noon lañ ko noonu lañ amee noonu lañ amaat yeneen yu ñuy def lii ñu indi fii nag tey jii mooy dañoo gis ne dëkk bi ñaari wàll la am nañu dëkk ci biir dëkk ba nga xam ne ni màggal gi danañ yëg ni tey gii mooy màggal gi danañ am ay xéewal yoo xam ne dana ak ci ñoom waaye am nañu sori ci dëkk bi lool ñoo xam ne nii xéewal yi ngir ñu jot danañ dox ay kilomètre kilomètre ngir mën dem ci dëkk ba di ko fàggu am na ci ñoo xam ne ci sax ay seewa lañ koy jël bu ñëwaatee fii xewlu ci buñ ko toggee ba noppi eh, waat ko di ko weeraat ba mu ñu di ko togg am na ci ay sancaan yoo xam ne danañ def noonu loolu moo waral nag ñu ne ñun nañ jéem a jàppalanteeg suñu mbokki taalibe yi fexe ba gàttanu ñooña te li leen di gàttandoo mooy fekk leen fa fa nekk defar fa ay waañ yoo xam ne nii lépp lu waa dëkk bee di am waañ woow dana ko am bu ko defee si bisu bisu boobaa nag ñoom ñu tasee fa Eh, wut ay eh, jàng jàng fa xasida jàng fa alquran eh, ñu indi leen dañ fay war a berde ñu yendu fa yëg bis bi comme ni ko waa dëkk bi di yëgee loolu nag comme dëkk bi dafa yaatu mënoo jekk-jekk ne barab sangam laa koy def lu ma waral bi bi ñu si dañoo waxtaan ci biir laaj mbooloo mi yan quartier ngeen jàpp ne yayoon nañ lii ndax at mu jot dañuy dañuy dàkk xible yi ñeenti xible yëpp dañ fay def ay waañ bu de bu renee buñ ko defee fii bu ëllëgee dañ koy def faneen yaakaar naa at min ku njëkk def ñu ngi ko defee Tawfekh Bousso ci fii ci seen wet fii lañ ko defoon am na daaw defoon nañ ko tuddoo di gi bokk na ci tuddoo di ay eh, majaaneen fa ñuy wax daaru saw ba ca bétoo yu bëree bari def nañ ko ba bëri lag yu bëri def nañ ko fi ren jii nag mbooloo mi dañoo bokkoon na ci quartier yi ñu tànnoon muy barab bii sanc Camara lañ waxoon rek sanc Camara eh, waaye lépp ci mbooloo mi xamuñu woon amuñu woon majorité buy wane ne barab sangam lañ ko war a def loolu moo taxoon nag ma àndoon ak sëñ Xaadim Dieng mi nga xam ne moo jiite sous commission bi yor wàllu séddale gi ak sëñ sëñ Baara Fall ñu ne woon nañ wër nañ wër ci penku bi nga xam ne ñun xamuñu fu ñu jëm oto bi daal day day dem rek bu ñu demee ba gis foo xam ne leer na ne fii moom manqué ab ab amuñu courant amuñu manqué nañ daal ay taxawaay ñu taxaw foofa laaj njëkkoon nañoo yow fii ak bëccëg. biñ fu ñëwee dañoo laajte benn soxna lañ taseer rek laaj ko fii nu tudd mu ne Santhi Camara 2 la tudd ñu ne ko ndax mën nañoo am numéro chef de village mu ñu ko ñu jël ko dem waxuñu ko luñ luñ fi wuti waxuñu ko dara noonu lañ defee ci penku bi noonu lañ defee ci soow bi noonu lañ defee ci gànnaar noonu lañ defee ci ba ci ba ci barab bii léegi nag ginnaaw yàlla dogal na ba euh, biñ defee loolu ba noppi nag ci lañ wax ne ne kon nañ fa demaat ginnaaw ak bëccëg lañ fa demoon te kenn xamutoon ñëw nañ fa ñu demaat fa nag guddi wala ñu demaat fa ngoon ndax biñ départ rek léegi daanaka takkusaan ba léegi ñu ngi wër di wër barab yi fii lañ fii mooy fi ñu mujj agsi ngir ñu mën a wax waa dëkk ba lan moo ñu fi taxoon indi eh, li ñu fi tax a ñëw tamit mooy jàppalante ak suñu bokk taalibe ngir jëmmi suñu borom ak jëmmi sëñ Tuubaa ndax yéen ñi doon wax yëpp kenn koo xam ne ni xam naa ci sa tur ëmb man mii di wax tey xamu leen ma ba fii may wax ak yow yaakaar naa bi ngay jël kàddu gi da nga ne sëñ bii di wax waaye fu ma ne nu ma tudd fi mu doon xamoo ko kon yàlla dong moo ñu fi tax a ñëw ak jëmmi bi lii ñu leen di jàppalee itam lu ñuy jaayante li suñ biir ñun ñi tamit lu ñuy jaayante ci suñ biir ndax commission sociale bi li muy li muy li muy li muy eh, taxawoo nit ñi dañ koy jaayante man maay maay génne li ma yor keneen génne keneen génne keneen génne ñu boole ko loolu la ñuy jël naka jekk nag weer wu nekk am na lu ñuy def ci la taxaw ñu wéer di ci la ñuy yóbbu xewal yi ñu déglu ci jumaa ja bu événement amee nag xew-xew yi nag ci la ñuy tamit bokki taalibe yi nga xam ne ñoom lañ bokkal dëkk-dëkk bi kon daal li tax li ñu tax a ñëw fii mooy bëgg bu bisu màggal gee bala ñu caa àgg incha allah danañ fi ñëw indi fi eh, nag yi nga xam ne moom lañ ngeen war a kii ceeb diw suukar kafe yooyu yëpp danañ ko fi indi indaale leen tamit koppar yoo xam ne nii da ngeen ci mën a dépassu dañuy da ngeen ci mën a fàggu ay ginaar da ngeen ci mën a fàggu mburu mu ngeen dëkkee yooyu yëpp leen yéen li leen ci war rek mooy bu bis ba nañ seet ñi nga xam ne mën nañoo jàng alxuraan ak daara yi nekk fii ñu ñëw wàcce fii kaamil jàng fi xasida yan yandoo yandu fi man fee xewloo ndékki añ reer ngir sant li sëriñ bi boromam loolu rek moo leen ci war waaye li ci li ci ay xéewal ak yëpp incha allah ñun danañ danañ ko fàggu indi ko jamono jii ñuy wax nag mu ngeen may woon waxoon ne ma xéewal yooyu a ah, jox ñu ci benn kilo suukar nekku fi fii may wax ak yéen benn kilo suukar sax nekku fi waaye nag sëñ moom borom moom li muy juwaa baaxoo jëflanteeg moom mooy tayam ju nekk mooy gàccal démbam ëllëgam ju nekk mooy gàccal tayam dañoo am yàqin ci ne niñ ko bëggee daanañ ko amee ndax noonu la suñu borom doon jëflanteeg ñun ci li weesu moo tax ñu jàpp ne lii ñëw moo ëpp solo te mooy gën a mooy gën a baax loolu nag moo ñu fi moo ñu fi indi woon njëkke woon nañ ci quartier bo boori Bobareel am na fu ñuy wax quartier Sëñ Saliou ñu koy wax Mbisaab la ci li ñu wax mooy euh, foofa fa lañ daan bayee bayeele sëñ Saaliw bisaab bi nga xam ne moom lañ daan yóbbu ca tool ya côté boobu fa fa mujj si ba bëri bu dee côté côté euh, penku sow bi dem nañ fi ñuy wax forage weñ ba euh, te ñu koy wax Daaru Salaam Tawfeex foofa dem nañ fa waaw bu dee côté penku bi tamit fu ñuy wax njaabi la ëpp ñi ña fa nekk ci ñi tuxoo ndaamaat ak Daaru Rahman ñoom la léegi fii lañ fii lañ ñëwaat noonu lañ bëggee tamit mu doon yeneen yu yaatoo yaatu ci yeneen barab yeneen barab waaw kon daal loolu moo doonoon yitte ji rek. commission sociale bu tubaa ci kanam nag liggéey bi jëm ci social grand magal bu Touba door nañu ko waaye nag muy sant bu baax a baax Serigne Khadim Amar di jàmbaar lool ci liggéey bi ndax bañu ko dooree ba léegi at mu jot taxawaay yu am solo lay amal ci waa ñu màggal yi ci jëf yu rëy rëy di santit Amadou Ba ci taxawaay yi nga xam ne moom it amoon na ko ci màggal gi nga xam ne moom la ñu weesu jaayante woon na lu toll ci ñeenti waañ yoo xam ne moo ko jëloon en charge defoon ci ay koppar yu takku yéen it def leen ni ñoom ñëw ànd commission sociale bu Touba ci kanam ci social grand magal bu Touba édition 2024 bi képp koo xam ne bëgg na cee sasoo waañ wala mu tàbbal loxoom ci liggéey bi numéro bi am na Orange Money am na Wave 77 914 26 68 ay wa ñëw leen gaaw ànd commission sociale bu Touba ci kanam jaamu yàlla ci jaami yàlla yi bi jaayi xayri man abaa